koy kii rek fexe ne balaa bëtam mi ngi taa li muy wax ci biir xolam la ko la ko tibbee j'adore man j'aime bu ma touché xolu nit ñi j'aime bien euh, euh, Asma pour euh, revenir ci laabaan bi dafa wax lu am solo euh, gis nga mag yi bu koñ bu xale tëddee ci koñ ñoom booy nelaw sax dañ lay nee na jugal mhm. <laughs> sama genre maam yi dañ la daan jugal diw tëdd na kaay assisté sax yoon sax newul ci diw ah euh, excusez moi tu t'en fous sa vie et tout mais moom daf la naan kaay jugal diw diw ak mu teel teel daf lay yee di nga ciy mhm. patumee par force di nga jug soo say daal parce que daf lay bëgg rek euh, nga bàyyi xel ci yenn yi mais bon si suñu génération ñun tey xale yu góor yi lu ñuy xewal tamit j'aime bien parce que sutura la parce que man je dis que ne affaire de virginité ñaar ñi ko sekk ñoom ñoom seen seen affaire la dafa intime donc lu ñu xewal neex na ma léegi xewalatuñu peut-être euh, baana cosaan ak yooyu noonu dañuy woo bàjjan bi nekk ñun de kontaan nañ ci sa si si sa doom tout court soxlawuñu yóbbu sër soxlawuñu def dara parce que ñoom ils se disent que ni intellectuel la xale bi aussi noonu la génération bu ñuy dund on n'a pas besoin que ñëpp xam ne ni tey ci guddi lii lañ doon def ñu bëri esprit boobu lañ doon kiiwee mm. donc ñu ci bëri léegi yóbbootuñu sër wala delluwaat ci seen kër yaay bu ñu tëddee pare dañu boo xoolee sax bu réception bi guddi gi nii dañu lay sàcc sa jëkkër da lay jël yóbbu la vite fait. ngeen dem góor yi di sàcc Pa Assane seen jabar ah yàkkamti rek lu la leew kay nga koy rëbb ay ati at nag. wax ah. dëgg yàlla bu la lewee guddi googu looy xaaral boo boo jëlee sa jabar. Ah, <laughs> nga nga nga fekk ci euh, sër bi daal nga war ko delloo bàjjen nga war a wax ni kontaan na ca démb parce que nana dafa ubbi rek nga ne aka am solo. ah waar. am solo dafa <laughs> am solo dafa dafa c'est crédibilisant. mais euh, lu wax naa fi keroog ma ne jigéen mit la. Mhm. kumpa. Mhm. ñu naan lu la lu la jafe day am importance bu la yombee da koy ñàkk te jigéen Sénégal dañoo baax dañoo yiw dañoo rafet dañoo barkeel yàlla na yàlla sàmm leen. yal na yàlla baaxal leen yokk leen yal na defar leen leen defar dama bëgg ngeen jëlal ma yaa dañu baax yàlla dolli leen amiin <laughs> nga si après parce que euh, euh, bii nii dañoo indiwaat rek cosaan ak aada comme je dis tout le temps ku ci nekk ak sa am nga droit dund ko nu mu neexee euh, sëy basé benn yoon ci xale bi jànk la ou pas baax basé foofu parce que des fois nga takk jànk nga xëy ngeen dem ba ci biir am yeneen problème infidélité ak leneen ak leneen xam nga des fois nga takk koo xam ne tamit du jànk mu sëyal la sëy bu rafet basé wul ci mhm. lool mais dañu indi rek merveille bi aada ak cosaan boobu ni mu neexee mais moo tax dama bëgg moom daf ci xam euh, l'effet que ça fait. Mm a parlé tout à l'heure je sais pas ndax détecté ngeen ko mais dafa wax ak mel ni ku dund effet bi nga jël sa jabar ah mu nekk xale bu ndaw nga dund effet boobu parce que Assane dafa war a wax ci lii. Assane expérience en tant que yow góor tamit lan nga ciy yëg parce que xale yi des fois ñu réeroo ne que comme li nga wax léegi ah. ci sutura dafa tënk wax di ñu piis benn bët mais dafa bëgg tey moom dañ lay zoomé nga tontu. xam nga xam nga xam nga xam nga dañoo nekk ci benn réew. boo xam ni dama bokk ak ñenn ñi bokk wala ñu bari sax Sénégal. Mhm. ñu gëm ne. jigéen moo ëpp doole góor jigéen mooy tax société bi baax Sénégal bu doxee jigéen la président bu jëlee décision am na moment boo xamante ne bu ko soxna si ne affaire yu yi. maa la ko wax yaa <laughs> vraiment dégg naa la mais li nga ci wax du yoon. loolu moom bu subaa nang nga ko réglé président bu xiiti ko réglé. loolu jigéen la ko yàlla may. jigéen moo am pouvoir président bi wax mu ne ko non je suis pas d' accord dindi ko loolu kii bàyyi leen ko mu dem gii Marius Sagna ba leen ko fi nii Marième Faye Sall maa ngi koy nuyu bu baax ku baax la. Mhm. na wax ñu bàyyi Guy Marius saaña boo koy wax. da nga bëgg wax ni daal exemple boo pour firndeel ni rek jigéen dafa jege boroom këram ba nga xam ni. Euh, lu mu ko wax dina ko déglu daal. te jigéen li mu jege boroom këram. mbiru laabaan boobu bokk na ci. Mm-hmm. même bu dee lu si loo xamante ni ci la ñuy tënku mm-hmm. Mm-hmm. bokk na si xëy na foofu lay waxee dama sàcc film bi sànq bokk na ci def ci compter mais du loo xamante ni forcément parce que nit ñi bokkuñu c'est am na koo xamante ni da koy dund da koy yëg am na koo xamante ni moom la mu bëgg la xam xam lu mu bëgg nit bi la bëgg moom li mooy kan ak lu mu def ak lu mu def xam na ko intéressé xolam ma la topp bëgg na ko kooku tam bëgg na ko yàlla barkeel yes moo tax uh-huh, non mais enfin <laughs> de nos jours sax xoolatuñu. loolu noonu est-ce que ñu ngi ñu nit ñi ngi penché. mais est-ce que c'est pas aussi c'est à ça qu'il y a énormément de cas divorce parce que avant laaban yooyu noonu. ak muur ñu sëy taxoon na nga am jom ba sa négocier bu taree sax da ngay. oui peut-être mën na nekk mais euh, léegi tamit il faut savoir que tamit sëy itam intérêt la gën a. ci la ñu gën a waaw mais en tout cas ak nu mu ci mën ci demee xëy man benn côté rek laa bëggoon signaler parce que ni maa ngi toog di wax comme kii ni mu ci amee émotion ki nga xam ne tey jii dañ ko violé peut mi ngi mhm. xool naan man du ma naruma dund loolu. c'est vrai xam nga mi ngi mi ngi mi ngi toog di imaginer ni tey jii nii lii nii ñuy wax nii nii da dinaa dund ba dee du ma xam lan lay kii. man dama lay defaraat pour loolu am na ñuy tukki mu jaral leen loolu. da koo jàngu ci boppam déjà que c'est dangereux. Mhm. c'est très très dangereux di defaraat sa ndaw góor bu lay bëgg da lay bëgg te yàlla tax. un point amul leneen amul sax après tiré non non point la. góor da lay bëgg. Mhm. te yàlla tax ñu violé la. nga ñàkk sa ndaw par erreur ak mu mu mm-hmm. ci mënti demee laabaan cosaan la neex na mais yow mi nga xam ne tey jii nekkoo ko aussi bu bu mu la frustré bul triste bu ñu yàq sa journée ñun ñu toog ci plateau bi non non sëy yàllaa ko yor Mm-hmm. kii nekk ci mbedd mi sax na ma na ma yàlla jéggal di jaay boppam sax góor da koy jël defaraat ko ba mu baax indi ko ci kër mm-hmm. asama ki nga xam ne ne erreur rek moo ci ram mm-hmm. donc relax waa ñi ñu violé tey du ñu neex le ah neex la leen bay bëgg a dee parce que ñëpp ñu bëri nga koy dund donc neex la leen laabaan daal asma mi ngi noonu mi ngi noonu lu neex la sincèrement man nee dara rek moo ma ciy déranger léegi parce que dañ ko xaw a euh, bu njëkk ba mairie lañ la daan indi ñu lay taasul di la woyal wax ju wax ju bu bu sell bu seen paasan boo xam ne amul dara lu mais léegi bongo maani wax ju ñaaw duñ ci boole nga eh, xam ne dafa am ci noonu ah, non man je les adore c'est mes amis et tout mais bon après euh, vulgarité bu ëppee dafay xaw dafay choqué bàyyi bàyyi waaw non dañuy aw sa ci digg bi bi fekkee ci dëkk bi rek aw yooyu ba pare mbiru mbiru sëy nañuy fàttaliku euh, on le ci ci nii. Mhm. ci sunu ay kàddu dans les médias dans les séries télévisées. Mhm. téléfilm yeeg yëpp il faut ñu sóor benn affaire Sénégal. Mhm. ñëpp ñun ñëpp. ñoo xam ne que dañu toll ci état bu defar dëkk bi. dëgg la donc ci état bu defar nag kii bongo sax dafa war a defar. Mhm. moom foog mu sóor du lu ma neex wax. Mhm. wala nu ma neex laa koy waxee kii tëgg sabar noonu. kii way noonu ak keneen ak keneen ak keneen c'est important. macha allah ñu jëlee jaajëfal bu baax a baax euh, Nana saa su ne rek lundi lay xewee fii ci Sen TV fii ci Subatel. Ah, ma moo doxal leen ci bigi sax laay laaj na mon ami mi ngi ñëw da fekk si fii tout de suite bigi laay ñëw laaj bigi moom li mu nar a wax si sa chronique bi yëpp yaakaar naa ne bu ñëwee dina si sànni xorom alors euh, ñu amat na fàttali ndaxte réew mi dafa fekk dafa dafa mat ñu delluwaat ginnaaw mhm. euh, xool lim fi maami bàyyoon li fi l'islam wàccee ndaxte bu ñu xoolee à quatre-vingt-dix-sept ou quatre-vingt-quinze pour cent ce sont des musulmans nañu bàyyi xel yoo mais non nag ceux qui ont été violés cest dire les cas exceptionnels lañ xam na ni ndogalu yàlla la mhm. te yàlla dina leen boole ak ki nga xamante ni dina am seen yërmande góor tàmmu nañ ci yërmande góor bu la yërëmee rek du la gaañ du la wax lu ñaaw du la def lu ñaaw du la teg lu métti kon nag nañ xoolaat bu baax suñu ay choice ci noonu la ñuy daal di dugg rek ci suñu zone musicale en compagnie de Fama Baye c'est tout de suite ñu bàyyi la rek nga dérouler revue euh, week-end bi. exactement ah comme euh, ni ma leen ko waxee tout à l'heure rek week-end bi li fi xewoon bëri na ci ay événements notamment sorti albumu Viviane ci loolu la ñuy dooree euh, ndax boobu moo jiitu ci journée wu samedi bi album albumu Viviane bi nag génn na beneen level te nag franchement comme son nom l'indique comme na ko album bi tur bi wuyoo naw beneen level la c'est un album de onze titres mais titre bi ci nekk. am na solo titre bi ci nekk euh, style musical bi ci Viviane andi euh, bokkut ak beneen bi ba pare mu indi ko benn style ba am te ne 100 pour cent afrobeat te instant bi dañ ko soxla parce que baax na pour ñu commencer exporter li nga xamante ne moom mooy suñu musique euh, sénégalaise donc tax na ne nekk ba ci album bi rek am na ci ay titres yoo xamante ne ci defar gi paasan doon wax rek naan. nit ñi woykat yi dañuy defar tëggkat beeg ñooñu ñëpp dañuy defar Viviane ci bi onze titre yi am na ci ay titres yoo xamante ne dafa ne kenn dafa ne kaay ma wax la ni ñuy sëyee sa jëkkër nii ak nii la loolu jigéen bu ko dégg soo ci jàngatee tuuti da nga xam ne jëkkër dañ ko war a tarbiru jëkkër danga koy toppatoo sa wareef daal la ci daal di wax nekk na loo xamante ne neex na lool. ba tax na rek euh, balaa ñuy ñëw ci vidéo bi nga xam te ne moom moo accompagner euh, li nga xam te ne moom mooy conférence de presse bi mu.